ñuy jëfandikoo wàllu gaz bi le soleil yëglekaay nag ne Sénégal ak Côte d'Ivoire ci UEMOA ak CEDEAO bi nag ña ngay gën a boole seen doole fas yéene amal ab duyoo bu am solo tukki ne mekk bu mu fa amal ni ki démb moom njiiti réew Sénégal Bassirou Diomaye Faye nag ma ngay waxtaan ak naataangoom bi di Alassane Ouattara càmbar nañu fa nag lu jëm ci wàllu coopération bi nga xam ne rek dox na ci diggante ñaari réew yi moom président de la république démocratie CEDEAO ak UEMOA yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye fay jamono ji nag loolee mooy yitteem fas yéene na ca ànd ak Alassane Dramane Ouattara ma ngay xamal njiital Côte d'Ivoire ci bi yëglekaay bi naan ko man damay jot say conseil yoo xam ne rek bu ma ko toppee mën naa jur ay saafara nag ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci mbooloo gi ñu bëgg ci sous-région bi te loolee lépp nag faaw ñu daal di ciy bay suñu waara boole suñuy doole gën a yokk itam wàllum coopération économique commercial bi nga xam ne rek moo mës a lëkkale ñaari dëkk yi mën njort rawatina lu jëm ci wàllu mbay mi wàllum développement des coopératives Alassane Ouattara di ko tontu ci biir yëglekaay bi naan ko ñun nag yéen dañoo mës a bokk gis-gis moo xam ci wàllu démocratie ak ci wàllu coopération régionale 24 heures yëglekaay ne ak si Dakar ak Abidjan kay fay ak Ouattara nag ña ngay teg seeni pexe bëgg nañoo gën a boole seeni coopération jaarale ko ci seen ay jëwriñ yu ñu dénk wàllu jëflante biti réew la ñu bëgg rek mooy jëwriñ yooyee boole seeni doole ci diggante Dakar ak Abidjan di jëflante saay su nekk waaye di waxtaan ak a weccoo seeni xalaat tribune yëglekaay ne lu jëm ci wàllu jàmm ak dal ci sous-région bi nag doon na lu soxal jamono ji Côte d'Ivoire ak Sénégal te itam daan ci amal ab xeex bu am solo ñeel wàllu terrorisme ak lépp loo xam ne rek ay acte criminel yu ñuy nemmeeku yéenekaay bi ne président Diomaye Faye nag ma ngay teg ay gis-gisam ci kanamu Alassane Ouattara Walf Quotidien dellu soir ci tukki nemmeeku bi nga xam ne rek moom jiitu réewum Sénégal amalee na ko foofee ca Côte yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye nag àdduwul jëmale ci wàllu CFA bi lañ fa waxtaanee bokk na ci mbirum diplomatie ak lu jëm ci wàllu bon voisinage voisinage addu jëmale ci leneen mu soxol laa yëglekaay mi nga xam ne rek xëy na tey jii ci wàllu pétrole bi ne lu jëm nag ci wàllu prise en charge bi nga xam ne rek xam ne rek moo jëm ci wàllu production pétrogazier yéenekaay bi ma ngay xam ne ne nag faaw ñu amal ay négociation rek jëm ci wàllu contrat yi le quotidien yëglekaay xëyee tey jii nag ci lu jëm ci wàllu coowal suuf gi ñuy tudd ci réew Sénégal kii di Demba Kandji nag moom ma ngay dellu suwaat ci jafe-jafe yi ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne li gën a doy waar te doon ay jafe-jafe jamono ji ci biir Sénégal mooy coowal suuf moom Demba yéenekaay yi nag di xam ne ni daal lu jëm ci wàllu corniche ouest bi nag benn pàcc la rek ci rapport yi nga xam ne rek fësal nañu ko mook scandale bi nga xam ne rek moom la ñuy tudd ca mbuurkat vox populi dellu soit ci kàddu yi Demba Kandji mi nga xam ne rek mooy médiateur de la république moom nag ma ngay yëg lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne rek ñu ngi koy nemmeeku ci ni ñuy caxat-caxatee suuf si ci réew Sénégal ma ngay xam ne ni nag li xew ci monde rural bi file fukki at mbaa fukki at ak juróom nag moo nar a gën a doy waar ci li nga xam ne rek moo xew fii ci corniche bi te loolee nag faaw kilifa yi def ci ab taxaw seetlu ndax war a bay ëllëg ngir luy suqali réew Sénégal lu soxal coowal suuf si nga xam ne rek moom la ñuy tudd ca mbuurkaat yéenekaay bi di lii quotidien nag ma ngay dellu siwaat ci téeméer ak ñaar fukki parcelles yi nga xam ne rek moom lañ fa daal di joxe nag maire bu Thiès moom jamono ji nag ma ngay assumé nag waaye di leeral ci biir bi ne juróom fukk ak ñett ci juróom fukk ak juróom benn ci ay conseillers municipaux nag ñoo jot yooyee parcelle ana ci yan anam lañ leen ko joxe ak ci yan critère lañ doon defee yi les sélection nag kii di maire bu Thiès di Babacar Diop nag dellu siwaat na ci ci biir yëglekaay bi réew mi quotidien feelu ko ne scandale ba nga xam ne rek moom la ñuy tudd ca mbuurkat maire bu Thiès ma nga cay joxe ay dëggam moom Babacar Diop di xam le ci biir yëglekaay bi ne damaa bëgg rek leeral ne nag lu jëm ci joxe ni nga xam ne rek moo ca mbuurkat nag ginnaaw bi nga xam ne rek ñoom waa SAES ña ngay dal ci kawam démb ak tey nag ngir lu jëm ci wàllu affectation boo xam ne rek moom lañ ko bëgg affecté ca IFAN moom Ismaïla Madior Fall ma ngay indi ay tontoom ci li nga xam ne rek moo jëm ci syndicaliste yi nag ma biir yëglekaay bi ne waa SYDES dafa mel ni nag dañoo xamul nag li jëm ci règlement bi nga xam ne rek moo ëmb statut enseignant chercheur yi wala dafa am leneen loo xam ne rek moo leen tax a jóg ci biir yëglekaay bi di Le Quotidien moom nag ma ngay xam ne ni daal ab règlement de compte warul doon loo xam ne rek dañu koy doxal ci biir université bi addu jëmale ci Vox Populi mi nga xam ne rek xëy na tey jii ci liggéey bi nga xam ne rek waa douane defati nañ ko teg loxo lu toll ci 3 virgule 447 milliards ci wàllum billet noir lu mel nag ñu ngi ko tegee loxo ci Sénoba yéenekaay bi nag ne lu toll ci 9300 milliards nag ci wàllu wàllu faux billet waa subdivision des douanes bu Kolda nag teg nañu ko loxo bi at mi tàmbalee ak léegi addu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak ligue des champions demi-finale retour yi waa Paris Saint-Germain yéenekaay bi ne waa Dortmund ñoo leen fekk ci seen dëkk duma leen daan leen daat leen di éliminer jeexale yëglekaay yi ak lu doy waar li nga xam ne rek moom la l'observateur xëyee ni ki tey jii mu di ab nunu boo xam ne rek dafa doon sàkku benn bébé bu am fukki weer moom nag mu taxawee ca kanamu àttekat yu chambre criminelle bu Ndakaaru nag ma ngay xam ne ne li mu def ndax